mais sur la question du mandat dama koy wax dama koy waxaat peut bi je dis que c'est un débat je sais pas c'est un débat politique moral mais qui a des conséquences juridiques ou bien c'est des c'est un débat juridique mais qui a des conséquences politiques c'est pas lequel mais si so si on se tient aux fondamentaux de la République parce que man je suis un farouche républicain euh, un défenseur de l'état de droit bon si man ci état droit lay wax sànq yaa ngi koy évoqué li mu nekk ci état de droit état bi dafa war bi tout comme l'administré et l'administré euh, les administrateurs et l'administré sont soumis au respect du droit loolu mooy état de droit état bi da koo respecté ki ñu administré da koo respecté mu état bi am ay banqaas banqaas bu ne ñu am ko la cëralee donc du politique bi mooy dicter ce qu'on appelle le jeu électoral ou le jeu politique du aussi le pouvoir moo koy dicter ñun ñëpp lan moo ñu tënk politicien bi ne ci opposition bi comme ki ne ci pouvoir bi lenn moo ñu tënk c'est la loi loi ban le code électoral et la constitution constitution bi biñ ko lekko biñ ko dajalee xaw ma président joxe initiative am ne dafa bëgg wàññi mandaam loolu initiative am la am na ci droit c'est après le constituant tout comme mën nañ ko jaarale par voie référendaire dem ci peuple bi mais quoi qu'il advienne nañ nangu benn affaire ni ma waxee ne sànq réew mi ku ne da am sa bànqaas sa pàcc loolu say responsabilité ku nekk am loolu yoon cëralee ci réew mi réew mi dañoo d'accord ñun ñoom ne ku war nekk candidat ak ku a nekk candidat du opposition mooy définir ndax Macky Sall mooy nekk candidat wala nekk tout comme le président Macky Sall du moom mooy définir kan mooy ne candidat ci opposition bi ça c' c'est une mission qui revient au conseil constitutionnel seul et lui-même de dire ça loolu moom la ko yoon dëgg moom la ko moom la constitution bi jox à l'article 92 c' est le juge constitutionnel qui est arbitre du jeu électoral donc ñun ñëpp bu ñu nekkee ay vraiment gëm état de droit nañ bàyyi conseil constitutionnel lu wax ñu tënku ci mais quant à maintenant agiter le débat politique démb maa ngi Sare bi ñu fi toogee ma ne ko parfois am na xale yu jàpp ci mbedd mi yéen politiciens yéen a ngi au charbon pour vos intérêts mais man yéen ñi nekk élite bi ci kaw ni comprendre droit bi ak situation yi su ko booyee comprendre ñu bëri leen jàpp tey. Mm-hmm. wala ñu bëri dugg situation yi dugg tey. parce que la preuve am na responsable politique yoo xam ne fii ci réew ay élite kenn mosu gis ñu jàpp leen ci mbedd mi kenn mosu pour toujours ñoom ñooy paye les pots cassés mais élite bi jamais. loolu laa bëggoon daal ci tënk régler loolu et en attendant maa ngi xaar sa réaction par rapport à la République des valeurs sur la situation. Ah, sur le débat politique. je vous remercie aussi vraiment pour la pertinence du débat. merci ah bon en fait euh, moi je voulais repréciser une petite chose avant de continuer <laughs> quand je parlais de communication tout à l'heure sànq bi may wax communication euh, c'est-à-dire que. en matière de communication il faut d'abord définir sa cible boo déggee li may wax noonu c'est importance en fait c'est une contribution que je suis en train de faire je verse ma réflexion dans la corbeille je suis pas en train de faire des critiques euh, euh vile en fait ce que je veux dire mooy Thierno Alassane Sall boo ko déggee muy wax il parle plus contre ses adversaires politiques qu'envers les Sénégalais c'est-à-dire que waxul ak sénégalais yi waxuma ne amoon programme waxul ak sénégalais yi laa bëgg a wax c'est-à-dire que dans la manière de communiquer c'est-à-dire que c'est toujours parce que déjà wax nga ko dangay gis ne par exemple dans les médias c'est vrai c'est un constat on met plus ou on donne plus la parole à un camp plus qu'à un autre tey boo seetloo entre ça se joue entre Yewwi et Benno les autres comme ni nga ko waxee sànq ils comptent pour du beurre loolu nag pour casser bipolarisation boobu da ngeen leen doon fanaan ñukk wax ak sénégalais yi wax ak sénégalais yi mooy avoir un discours qui parle au sénégalais parce que tey sénégalais yi ils sont en de se chercher parce que entre Benno Bokk Yaakaar bi téye pouvoir entre Yewwi incarné par Ousmane Sonko euh, tey dafa am benn benn benn benn benn confrontation boo xam ne sénégalais yi dafa mel ni ñaari camp rek moo fi am donc ñu ngi leen di dégg yéen a ngi wax mais man bu ma sañoon. ngeen leen la fi ñukk pour casser loolu wax ak sénégalais parce que en définitive ce sont les sénégalais qui vont décider donc il faut avoir un langage envers les sénégalais am nu ngeen di. waxee professeur pour la leçon. waaw am nu ngeen di waxee est-ce am ngeen di waxee ak sénégalais yi. c'est-à-dire que bàyyi bàyyi bàyyi fi bàyyi fi Benno Bokk Yaakaar bàyyi fi Yewwi ñoom ils ont leur combat ils ont leur discours. yéen ngeen am un discours. c'est c'est c'est c'est désolant que peut-être que xëy na aujourd'hui euh, seen seen coalition bi c'est plusieurs têtes ku nekk dem na sa côté mais bu ngeen dajaloo wootoon am benn discours di wax ak sénégalais yi mais comme si déjà ku nekk dem na côté mais mun ngeen ba tey di wax ak wax ak wax ak sénégalais yi dans ce sens c'était pas la seule question. ça c'était l'entame. Ah, vas mais c'est à entendre Thierno Alassane Sall parler du conseil constitutionnel je suis désolé pour un homme d'État warul waxee noonu ci conseil constitutionnel à la limite da nga décrédibiliser le conseil constitutionnel <laughs> conseil constitutionnel amul benn valeur xam nañ ne day valider candidature euh, président Macky Sall xam nañ ne xam nañ ne mais mais conseil constitutionnel encore une fois un homme d'État et un candidat potentiel pour mën a dem à des te tey boo fal woon yow ci devant le conseil en tant que président élu fa ngay waat pour nekk président de la république donc ce conseil constitutionnel là faut pas le fragiliser parce que je crois que aussi conseil constitutionnel dafa am rôle boo xam ne texte yi ñoo ko dénk dénk ko boppam dénk ko boppam loolu ngeen bëgg ko moo am ngeen bañ ko moo am parce que Thierno Alassane Sall buy déposer candidature am conseil constitutionnel la koy yóbbu conseil constitutionnel ngay yóbbu sa candidature keneen ku bëgg a nekk candidat conseil constitutionnel la koy yóbbu loolu il faut mu leer ci bopp sénégalais sénégalais yi war nañ ko xam ah, nga xam ne képp kuy déposé conseil constitutionnel nga jëm kon nag bu ñu ne conseil constitutionnel boobu baaxul kon dangeen am feneen fu ngeen di déposer seen seen candidature amu leen ko donc soyons légalistes on peut critiquer mais soyons légalistes et laissons au conseil constitutionnel fair son parce que li am solo du diw nekk candidat c'est de battre diw boobu dans les urnes c'est ça le plus important le combat je le dis tout le temps le combat contre les candidatures ça peut se passer dans la rue mën nga dem ci mbedd bi di xeex ay candidatures mais gis nga pour battre quelqu'un jële ko ci siège bu mu toog danga koy battre dans merci. les urnes. merci euh, comme ça ñu mën a terminer à 30 pile. parce que j'ai uh-huh. man c'est bon. tu tu n'as rien à nga nga nga répondre parce que il faut il faut voilà 30 il faut que ñu terminer. c'est-à-dire que xam nga question euh, république des valeurs contribution république des valeurs. mën mm-hmm. naa tontu ci ñaari premier point yi am na lu ñu ci nuróo ñoom je pense que. c'est votre procès que vous faites ñu ngeen waxee. c'est votre ah, ñoom seen procès peut-être ñu ngi tout le temps tribune amu kii chronique amuñu temps wu lire man j'ai écrit un livre. Hmm. le livre c'est pas cinq cent et quelques pages c'est pas que sur le pétrole c'est un livre où il aspect programme et critique et analyse même suñu indépendance ak suñu état lu tax mu taxawee nii culture politique yi lu tax mu demee nii ainsi de suite je crois que loolu contribution la mun nga ko xep mun nga ko bañ a xeeb mun nga am kii bind naa ci d'ailleurs y un chapitre boo xam ne c'est que sur le numérique hmm. tellement le numérique est important au vingt-et-unième siècle il y a sur l'agriculture sur l'énergie est-ce que vous parlez dans, à tous les Sénégalais dans un livre aussi non damay jox non dafa ne ils ont pas j'arrive j'arrive non xam nga bu ngeen di laaj bu ngeen di wax damay déglu ne teb je donne un exemple livre maa ngi ci dawaa yu mel nii hmm. ñu ngi bind ay contribution ci sur les questions économiques et politiques je me rappelle par exemple en février 1er février 2021 mun ngeen euh, tàppe internet ngeen xool on a publié un texte boo xam ne sur la situation économique Sénégal wax ni bu ñu moytuwul dina am ay banque mondiale moo ko wax teguñu ci un mois mooy émeute mars 2021 je pense que njëriñ lu loolu di jëriñ mooy ni état wu Sénégal attention rectifier sa taxawaay situation bi critique na comme ni ñu waxee ni attention il a trop de tension dans le pays mais loolu bu ma ci bëggee yegg si depuis sànq maa ngi ne may leen ma ma alerter ci lu xew yaraax ci lu xew kayaar te yemul kayaar rek parce que cette population mi yoo xam ne ay dañu sëy entre eux am ay doom bu pourquoi ñoo en arrivé à là pourquoi sàmm yi ak ñenn ñi di di jàppante ci biir réew mi man loolu laa bëggoon ñu wax diri naa leen ci débat boobu ba sond <laughs> ngeen bañ parce que yow danga am peut-être euh, des œillères yoo xam ne euh, yaa ngi ci taxaw maintenant sur le conseil constitutionnel mais c'est la vérité c'est-à-dire que débat bi da ngeen ne tout le temps on fait un débat truc mais buñ ko bëggee yëkkati moi je sais pas débattre de je me vante man je cherche l'excellence partout et je de, chercher l'excellence kooku c'est <laughs> j'aime pas les les de bas étage bu ngeen xoolee sax j'ai tout fait pour éviter ça mais boo nee eh, par on vous explique depuis cinq yow explique naa la depuis cinq que aar on est ensemble démb ñun ñoo reer nga ne bu ngeen tasaaroo mais que vous avez retenu du débat et où est que vous voulez que les Sénégalais mais c'est ça le problème parce que cest dire que. mais reer ça ne veut dire que vous êtes toujours ensemble. non attendez. et programmatiquement. xoolal bu fi nekk di di weranteeg ah, man. ci lu ñu nekk. c'est-à-dire que il toujours ensemble. si vous voulez si vous voulez si vous voulez man maintenant. Euh, xam nga problème bi mooy. problème mooy. vous vous n'avez rien à perdre. ah c'est c'est-à-dire que yow Amadou toog fii. wax ma lu ko neex xëcc ma ci lu ko neex man j'évite ces débats là parce que j'ai beaucoup à perdre et je m'efforce de ne pas y aller et je force de dans un débat constructif et à la fin bon c'est les mêmes clichés qui reviennent après si on disparaît des plateaux on nous dit ben plus accessible comment faire en wolof euh, dama ni mhm. gis nga gis nga problème problème mu dàkku bi mais du nit ñoo ko woon génne noonu la jël man tap jàpp naa ni am nañu critique yi ngeen ñuy def nii xarab yi ngeen ñuy def nii am na ñu ngeen ko war a def parce que ba coow li commencé man deux 2018 laa ci njëkk a wax ba coow li commencé est-ce que ñun ñoo waroon dem photo photo ferme yi. Hmm. di ko jéem a jéem fësal di wane wan Sénégalais yi fan la seen xaalis dugg. peut-être l'Assemblée nationale pourquoi pas. wala la presse. la presse wala les les corps des inspections euh, de de de, de, de l'État mais ñun avec nos maigres ressource en tant que parti politique on se dit que il faut que man en tant que député ma dem xool affaire boobu lan la bon sénégalais yi mooy suma contribution ci situation bi dag bi nii la demee. y a cinq pages que vous avez vu après gëstu ci. bu réellement y a y gëstu ci wax ci. mais saa loolu boo ñu newul gàcce gaalaama wala yéen au moins yéen a ngi jéem a débat bi yóbbu ko feneen yóbbu ko ci ay problème personnel crypto personnel wala yooyu accusé wuñ kenn yóbbu ko ci un niveau saa waay mënoo fi toog nag tegale say tànk dogu ba mu neex la ñëw di ñu naan euh, yéen euh, république des valeurs débat bi kiiw la c'est trop facile il fait le beau il faut pas non xam tamit chroniqueur tamit dafa yomb quoi xam ah, nga ah, non non non non ah, il vous êtes en train de de de de lancer des pics à la limite personnelle ah. pas des pics pourtant non parce que vous n'avez même pas compris ma oh, position. waaw waaw moi j'ai pas pas critiqué j'ai dit je verse ma réflexion dans la corbeille. c'est pas une réflexion je verse ma réflexion dans la corbeille. c'est ce que j'ai dit c'est que ñun on a bon dos en tant qu'homme politique lu ne la ñu teg. parce que rek on doit plaire tout le monde parce que on doit non. Ah. se comporter élégamment parce que no mais il y a des critiques nag c'est totalement infondé l'émission là en fait foi man du ma sañoon tey duñ du ñu waxati pétrole man du ma sañoon duñu toog du ma toog fenn ñuy wax pétrole. mais Thierno euh, pétrole nag c'est une longue histoire. waaw man bu ma sañoon mais dama lay wax rek bu ma sañoon. dañ may wax vous êtes lié au pétrole dañ wax agriculture Sénégal. nan la ñu ah, fexe ba ba ñu indi ko parce que gis nga euh, Maymouna ce qui se passe le pays là est dramatique. dafa dafa doy waar gis nga fii ci Kirène am na hollandais yu fa nekk hmm. six mille hectares la ñu am lu ñu fay béy ay milliards di yóbbu bitim réew nga dem wetu taset ay espagnol ñu ngi jiiroo suuf si di jënd suuf si yépp béy ay milliards di yóbbu bitim réew di utiliser suñu doom yi comme ay ouvrier agricole boo demee Espagne tamit suñu doom yi ñoo fay nekk ouvrier agricole nga ñëwaat suñu réew suñu doom yi nekk ouvrier agricole xam-xam baa ngi fi kattan gaa ngi fii xaalis gaa ngi fi on l'a vu avec les vingt neuf trente huit milliards on va encore mobiliser cinquante quatre milliards pour le Prodac ñun ñu nekk di débattre fii la jaan ji jaaroon fii la nangam sangam mais débattre ñu comment on va élever la le niveau de vie de nos populations on va faire en sorte que suñu doom yi ñu dem Tunisie di faju ji sénégalais ñu ngi dem Tunisie ji di faju ji actuellement am na fa benn mbokk boo fa nekk Thierno on termine euh, a légaliste non nous on est respect des lois et des règlements. mais respecter loi règlement. que les par respecter les lois et les règlements du pays. tout le monde mais il faut ñoom d'abord. c'est pas le droit. dafa dafa nga wax la. xam nga conseil constitutionnel mënul ne du ñu yi aussi ñoom ñooy les commandeurs ñun ñoo voté. 2016 ñëpp nii. président de la république taxaw ni man lu tax ñuy voter élection constitution bi pour que léegi mu leer que problème mu deux mandat dootul amati ñoom en 2012 conseil constitutionnel il disent que lu tax ñu may Ablaye Wade mu am troisième droit à def candidature à un troisième mandat parce que constitution bi prévoirul ay dispositions transitoires gars yi bëgg dugal disposition transitoire en 2016 pour loolu leer ñu def complicité ne ñoom mënu leen dugal disposition transitoire. parce que day personnalités. defal defal non defal naa rek. 2012 2012 amut. 2016 mënta am. loolu mooy lan pas pas parce que personnalisé encore une fois il y a des constitutionnalistes nekk ne que le conseil constitutionnel ne peut s'opposer qu'à ce prévu ni lii forme républicaine. Euh, ci forme laïque ak yooyu de la constitution mais bu ñu ci bëggee dugal ni léegi mandat bi deux deux mandats la te bii def ciy bokk. war nañu ñoom waroon nañu ne nii ngeen di koy bindee pour mu mun a jàll. merci donc bu ñu fekkee ni ñoom dañu dañu dañu dañu toog a gaay yi. def seen jeu ba mu nga xam ne bu ngeen ñu envoyé affaire bi nii lañ koy nii lañ koy àttee ñu denc seen i këyit ñu dem euh, euh, euh, référendum ba pare. <laughs> ñu doog a génne ni defoon nañ fi décision après le référendum mais loolu lan la doy di